Bombardier ndeysaan paara simplement lay ñëw moom xam naa kenn du ko sonal ndeysaan léegi amatul lu muy wone moom daal di ànd ak 10 personnes jàpp ñaamuram kenn ko dagg kenn du ko amerde kenn du ko taxal duy day gàllankoor su ba pare dugaat minicar de 15 places dem ñibbi dem yoonam làmb ngi mooy Serigne une légende vivante qui a fait qui a beaucoup fait dans l'arène xam nga ni dugg seen bi wute naa keroog ba muy jàmmarloo ak Yaxya Jóob Yékini ndeysaan le 2 janvier 2011. wute na tamit ak mi jàkkaarloog man mii. wute na ba mu jàkkaarloog yow jàkkaarloo tey gi nag mi ngi toll ci ci pandalu kare ci pandalu kare jël jël jël jël chance. waaw may ko xale boo xamante ne mi ngi toll ci. dugg dans la cour des grands pour bokk. waaw ndax combat bi lii enjeu bi mooy. Franc dafay daan bokk dans la cour des grands. waaw mën a dem xëccoo jeeg ñoom Balla Gaye ak ñoom euh, Pa Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ay Lac de Guiers. daal di daan nañ ko jël bu rëy Boy Julo daan na ko jël bu rëy Ndaamale mbot na ko. Boy Julo daan na ko jël bu rëy. Ndaamale mbot na ko. ah ko jël bu rëy ba daanaale ko suba. kon Julo daan na jël baatam. Julo daan na ko ba daanaale ko suba Mouhamed nañ dem seetaani tuusu Bombardier dañu ah, waat. waaw Bombardier gi noonu wane ginnaaw. lamb du ak maas dabante yaakaar naa ni xale yu yaakaar naa ni xale yu mbuur yi waaw boo leen déggee ni ñu tëgge tey sa xel dem ci Pape Gueye Doudou Diarra ndeysaan boo leen déggee ni ñu tëgge tey waaw sa xel dem ci Amadou Gueye kuy kooku Amadou Gueye de batteur bu mag la woon bu mag la bu nekk ca mbuur ak kan ak dut jaara ak kan di batteur bu mag bu nekk ca Mbour. waaye bul fàttaliku ni woykat wu mag wa. waaw di bàyyi saadi bu Samb di may Ndiaye Samb. waaw dañ ko daan tëggal ay tabala. ndeysaan waaye tabala yi boo ko musaan a day mel ni ay mango ji. kooku nag ay mango ji maanaam kooku mooy euh, moom ñoom Jookunda Jookunda bu mbuur ñoom ñoo ko daan tëggal nga xam ne mbuur sëwru baa dafa yàgg. Sawru Ba moom la xale yi lépp du ñuy fecc. Sawru Ba Moustapha yi xam na ko ndax daana bëre ci Gàmbi. fa la ñu ëppee. ñoom seen seen Sawru Ba bu ñu tëggee. da ngay boo amul dé boo amul dégg doo ko fecc. yaakaar naa ni batteeru mbuur yi tey. mbàkk bi ñu tëggal Bombardier. waaw Bombardier gëj na am tëgg bu neexee nii. waaye loolu yëpp day wane nag ni làmb bàkk daf ci am solo. ndax jëmm ji toog di Moustapha Gueye bu ñu ko Moussa na tuusal. mu jóge fu sori di tuus di ñëw. Ah. lu tuus mi sori sori gars yi du ñu bëgg mu arrêté. ndeysaan ndax bàkk ba ak lañ cay dugal. ak dégg ga. ndeysaan loolu nag dafa am solo moom moo tax daal ah Bombardier tamit def na ni franc fecc na fecc mu neex. père Tapha Gueye père Pala am na lu ko Bombardier fàttali dugg na ci cosaani mbuur dafa mel ni li mu wax am na fu mu egg ba nga ni ndeysaan. ah macha allah fu mu dugg ci cosaani noonu moom El Hadj Pala koy feeloo ah profité ci occasion bi. jaale euh, euh, kon mi ngi noonu yaa ngi tudd Amadou Gueye di rek Papa Gueye du jaara ñoo ba géwélu mbuur maa ngi maa ngi maa Baska Baska bu Mbour. Baska exactement. nekkoon ca usine glace ba. ah kay. di bu mag dëkk Mbour. maa ngi koy baale waaye Bombardier aussi. mi ngi ànd ak Mansour Diop numéro 2. Umar Mbaye di suñu doom. ndeysaan mi ngi ànd ak Bombardier. ah kay. waaw ak ñoom Moussa Loos. kii fu mu nekkoon ci mbuur dafa neex. waaw ndax Mbour soo fa duggee. boo dee baj Gueule ba dañ naan la indil papa kay jur jaara. ndax seen famille ñoo def. comme ni ko Dundiaaro si defee fii. comme ni ko Wiye Sang Faye di comme ni ko wii sax fee daan defee. dëgg la ak ñoom Ndiaye sax mbaj yoonu Dakar yi moom mbuur. waaw. saa yi li wax léegi Bougaré boobu Sawru Ba. Sawru Ba loolu moo dem ba leen ci. waaw ci milieu wu jéembe yeeg yooyu. waaw ndax euh, Amadou Gueye ba mu koy wax. waaw dama dajeeg moom Allemagne. Pape Gueye moom Suisse. ba pare ñëw mbuur mu yóbbu ma ci ay logement campement hôtel am. ndeysaan wuur faak man dama foo bëgg foo foo bëgg dëkkal fii ak un boobu la ñuy doog a gisante ma jibee ñu bàkk ndey doom liggéeyu ndey doom waaw ma gis Bombardier ñaq ma ne ah Bombardier bi tey de nur na ma ko décidé waaw nur na ma ko bëgg a làq boppam waaw nur na ma ko bëgg a def surprise bi ci laam gi ndax Bombardier waaw def tey ji ndam dina def loo xam ne moo tax ñu ngi nuyu sa xarit Luc Nicolaï maa ah, ngay Cheikh Fallou Luc Nicolaï ñu ngi koy nuyu bu baax c'est un grand monsieur ah, innovation yu bari ci làmb moo ko def bien sûr waaye di nuyu tamit Samba Diak nekk foofu ci mbuur ak ñoom Baro Gueye raay ba la gën bi nga nekkoon baax na am nga ay gande ay ca père waaw sa waay noonu euh, joxal ma ko micro bi usine mu ndàngal ma usine mu ndàngal ma moo bëre sànq lépp jàmm maa ngi sant yàlla judi si yonent bi di sant sama ñaari waajur ah. di sant borom mbir di sant borom mbir na bu wér a wér di sant ñëpp ku ma ku mel ni yëmbër esek naa maa ngi leen sant bu baax a baax a baax. di sant mais mais bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama septième combat. ñaata victoire am naa si deux défaites. ak ñaata victoire. cinq cinq victoire. cinq victoire. waaw waaw. mais kañ ren ñaata yoon nga bëree ren ren. per tey damaa war a bëree samay moroom. waaw. moo tax incha allah yi si kanam daal dawuti bët. dawuti bët. nan ma jox samay moroom. samay est-ce que yaa ngi pare drapeau chef de l'état bi. drapeau chef de yaa ngi koy waaj. non ñu ngi may woo nag mais nag maa ngi xaar daal. yaa ngi xaar waaw instant yii moom moo loolu noonu. mais ana Reug Reug. war waroo xaar ñu woo la da war demal sa bopp ndax fekkee doomu Dakar nga. Hmm. dëkk Dakar wala yoo xam région bu mu mun doon mu nekk benn fête da nga war a ñëw participer bokk ndax bu ëllëgee ci taarixu histoire dëkk ba ñu mën la caa boole foo dëkk yow doomu Dakar nga. waa fan nga waa ban dëkk nga caaroy nga ab lebu nga. mais bu fekkee Dakar nga la ah, dëkk nangal ma nangal ma waaw. ah loolu région de Thiès wala Diourbel. waaw région de Diourbel laa dëkk nangal ma. di sant waa nangal bu baax a baax a baax a baax di sant sëñ Alla borom Bambey di sant waa Kaba gépp borom Kaba maa ngi koy sant bu baax a baax di sant waa Réfan waa Réfan gépp borom Réfan xam na ma na xam naa maa ngi koy sant bu baax a baax a baax defoon jox na ma xaalis sant naa ko bu wér di sant képp kuy jàppale isim du nangal ma waaw combat baa waaw dama ko séentale rek jàpp na dëgër rek ba mu tëddat boppam dama ko dóor dama ko dóor yëg ne naa dama ko yëg ne naa quoi. waaw euh, euh, moo tax ma ko doon waaxu bañ arbitre soufflé. la mujjee bëreel Benteñe avant tey Benteñe moo ko daanoon tey mu ñëw rectifié wu daan waaw champion la rëg rëg lay am. mais maa ngi sant ñëpp di sant sama mag rëg rëg. waaw di sant Codé Faye maa ngi sant bu baax a di sant booy ma àndal yëpp. surtout maa booy Ndanga Mbaye maa ngi leen di bu baax a a mais maa ngi lay wax na gis naa ni danga nga gaañu ci sa loxo na nga dem léegi léegi léegi hôpital nga dem ñu bindal la sa licence déclaration d' accident nga boole kook licence bi dem CTO parce que loxo mooy bëre te loxo bii ma gis am na jafe-jafe bu ma ci gis kon nag bu ko fowe bu lu dem di ko di ko na nga dem CTO ñu xool ko nga yóbbaale sa licence. li nga waxee dëgg. licence bi nañ la ko jox léegi léegi. nga yóbbaale ko waaw. li nga wax mooy dëgg sinon boo bu deful loolu ay fas dong la ñuy takk ba mu fees dell fu fas fu romb fas takk ko ci foog ni fas yee koy faj te fas yi fajuñu ko séetewoo ñoo koy faj. bari na mbër yoo xamante ni Lamine handicapé nañu ndax dañoo damm di ko maaseek di ko faj. kii loxoom bii ma gis blessure bu metti la demal léegi ci arbitre yi ñu jox la sa ñu jox la sa licence. wane ko wane ko wane ko. Ah, bu ñu expliqué gars yi. bu doon fii la du gaañu. bu doon fii la du gaañu. mais ñaari baaraam yi mooy baaraam yi gën a yi gën a faible. moo tax ñu naan la booy dóor kurpeñ ñaar ñi ñooy dóor ñaar ñi duñu dóor kon boobu booy dóor kurpeñ jàppal ne ñaar ñi ñooy dóor ñaar ñi dañu gaaw a foxoj dañu gaaw a dem. loolu leer dem leen. jërëjëf bi ci médecin bi. dem leen ci docteur bi. commune bi nga benn géej. docteur bi moo leen di bindal kayit. waaw gars yi da leen joxaale licence bi. Paala licence bi. Paala ñu ne ñoom dañoo nekk ci li ñaan jàngale.